ngir euh, euh, nemmeeku si euh, d'abord liggéeykat yi ak masawu leen coono ndax ñu ngi gannaaw directeur général Senelec jéggalu ci sénégalais yi ci incident bi ak tolof tolof yu mu leen jural du suñu coobare bu ñu sañoon waxtu bu ne courant bi dina ñëw te def naa aussi matuwaay bu ñu war a mën a jël yëpp pour loolu bañ a am ñu ngi ci bu ngeen xoolee post bi ñu nekk ngeen xam ne màgget na lool moo tax am na benn post bu bees boo xam ne ñu ngi koy tabax ci waxtu gi bu leen caméra yi mun nañ ko filmer wane ko sénégalais yi xam ne am na post boo xam ne ñu ngi koy tabax à côté de post bu màgget bi fi newoon deux milliards et demi lañ ciy dépensé en février incha allah 2017 dinañ ko ubbi donc mu am ay xeetu jumtuwaay yu bees tàq waaye ak lu post bi màgget màgget lépp luy matuwaay lu ñu waroon jël. ngir incident bañ am jëloon nañ ko ndax am na équipe de veille bu fi nekk di surveiller maintenance ya ca war man ci sama wàllu bopp jéem naa ko xool vérifier naa ko ñu ngi ko doon def foofu laa mun a yem ci wàllum technique bi parce que li ci des waa Sénélec ñu ngi saytu naka la mbir mi dikkee ak naka la demee waa CRSE muy commission régulation des euh, secteur de l'énergie ñoom dina ñëw saytu ci xam ba xam ñu am benn rapport bu objectif boo xam ne du Senelec rek moo ñu ko jébbal rapport bi nag ngir dugg ngir tuumaal nit wala ngir dugal nit d'abord pour jàngat ba li xewoon bañ a amati bu loolu weesoo ñu jéggalu aussi ci réew yi nga xam ne ñun ñoo seq réseau bi te incident bi xaw leen laal muy Mauritanie ak Mali jéggalu lu baax léegi léegi aussi ay incident jóge foofu sénégalais yi war nañ xam loolu yegg si fii ci Sénégal fekkul lu demee nii moo am foofu mu ñëw yegg si ñu la laal ñu amoon na temps yële fii ci réew mi euh, bi may fi may daanelee mooy wax ni que ba mbir mi commencé ba waxtu bi du directeur général Sénélec du benn responsable Sénélec du ministre bi ma doon du président du premier ministre minute bu ne ba mu commencé dañu commencé di jokkoo di wax weccante xalaat ak information ci li xew ak naka la demee ba waxtu bii ma toll nii ba waxtu bi président moom moom laa doon waxal léegi nii donc xam nañu problème bi du question négligence wala ñoo ngi nelaw wala ñoo ngi waaye bu lu mi mbir bu mel ni amee dafa am fu gën a jekku ñu toog di ko saytu muy centre mbaaw bi nga xam ne foofu la télécommande yëpp nekk nga gis réseau bi yëpp cees moom doxatul nga xool nag naka ngay reprendre réseau bi di xool yan problème moo ci am mais fu ñu toll ci jàngat daal ñu ngi sant yàlla ci ni Sénélec doxalee am mbir mi en attendant ñu gën a am information bi ci des mooy problème mu électricité bi wax nañ ko waxaat ko. def nañ ci ay jéego yu am solo di ci sant direction générale Sénélec di ci sant travailleurs Sénélec yi sant aussi gouvernement bi président bi nga xam ne moom moo jël budget bi takku bi mu laaj ak pousser pour que investissement yi ñu war a def ñu def ko képp kuy sénégalais mën na constater que fourniture électricité bi tane na bu baax a baax waaye comme ni ma koy waxee souvent wax naa ko fan yee ñu weesu bamtuwaat ko. lu mu tane tane wéruguñ ba nga xam ne si buuruwaat ci diggante gi wala amaat bopp buy tàng ci diggante bi xaju ci mooy lii ñu xew nii te li xew nii ñaar moo ko waral poste yu màggat installation yu màggat moo tax Senelec am na plan d'action wala ay câble yu màggat réseau bu màggat Senelec am na plan d'action prioritaire ci ñetti at pour loolu yeesalaat lu bëri wax naa ci léegi ci lu ñuy yeesal ci post bi ak feneen ak feneen ci biir réew mi ak yokk réseau bi beneen bi mooy am na loo xam ne ñun ñun Sénélec ak ministère énergie luñ ci mun bëriwut mun nañu fu ñu gis ku def kantinam ci wetu ligne haute tension wala ku ñu gaaree camion ci suufu ligne haute tension ñu ne ko lii waroo ko def waaye xam nga réseau bi nu mu yaatoo ci biir réew mi mënuñu pylône bu ne ligne bu ne topp ko dafa am loo xam ne citoyen moom moo ko moom ak dëkkam nu Sénélec warloo sénégalais yi courant noonu la citoyen bi tamit warloo ci Sénélec wala ci réew mi respecter yenn normes yi mais da ngay gis fu bëri ak fii ñu taxaw mun ngeen ko gis ay lignes haute tension yoo xam ne dafa jaar ci kaw ay terrassu kër ay lignes à haute tension yoo xam ne dafa ay cantine dañu fekk ko fa euh, cantine zinc wala yooyu ñu ñu taal ay nit ñuy dawal di course parfois di njëkkante surtout yu xew-xew diine yi bu amee di jaar ci suufu lit ligne haute tension yi suufu pylônes yi di dawante di rek njëkk njëkkante pour njëkk a yegg fu ñu jëm loolu bis boo mbëkkee pylône boobu mu daanu li amoon barki démb mooy lu mel noonu mooy amaat te loolu nguur gi ak jumtu euh, matuwaay yu mu mën a jël du mat tant que sénégalais bu nekk xamul ni lii dafa mënul nekk lii war na mën a nekk ñu leen di gërëm ci wàllu boobu di leen sant.